mbokk yi sen chen midi bi di Xam Sam TV dellusiwaat nañu ci waajtaayu màggaluk daru Muxti ñu ko ande woon ak rek ci dunduk loxob ndeyjooru serigne touba ba ke serigne touba doy won bo bo muy tukki mu baye ko njabot gi ak talibe yi muy borom darul mort ñu nuyu ak ziyara serigne Muntaxa Mbàkke mi toga toogaayu serigne touba ak serigne basirou Anta mi toga toogaayu Cheikh Ibrahima Fati Mbakke mu ñaar ñi nga xamante ni kii moo toog toogaayu ka doon tukki kii toog toogaayu ki ñu bàyyee woon njaboot gi ak yoon wi leen nuyu di leen ziare di ñaan sunu boroom yàggal leen fii te wéral leen ak njabootu Sëriñ Tuuba gépp ak njabootu boroom Daarul ci gépp di ziare mbokk yi nuy topp ci seen chaîne bi di xam sam réew TV di nuyu keppaangoog ñii safoo xam sam réew ci Facebook bi waaye support xam sam réew di keppaangoog nekk ci Amérique di bokki taalibe yow ànd ndaje ngir jàppale seen chaîne bi ñu di nuy di len ziara di nuyu ak ziaré sidna Omar Ba ci Paris ak soxnaam soxna awatal Ba sidna Omar di ko am ak tiofel ci borom darul moti eh, ba ma xam ko ndax man borom darul moti moy sama natoy li tubaab di wax euh eh, dina ci japp nit dina ci bayyi nit eh, képp koo xamante ni bii wan nga mag cofeel ci borom Daaru Muxti te moo war bépp murit ne la wër ni sama xol bi yaa ko moom si naamar ba nag mm, ak cofeelam ci borom Daaru Muxti moom dama dem ba xamal ko sama bopp kon maa ngi koy nuyu di ko ziyaare ak mbokki taalibe yi nekk euh, Paris yëpp mbokk yi ñëwoon naa ak yéen ba ci bi sëriñ bi nekkee ak waajuram pataar te li mu nekk ak waajuram lépp sëriñ bi musta dara taalibeem bi di rakam ji nga xamanteni wajuru moko ko jebbalon di borom darul moti waxna len ni mom jëfëndukaay yu serigne bi la won borom darul moti mo don liggéeya ko nu serigne touba yitte yi nga xamanteni serigne bi ñeek na ko am ñewon na ci ak yeen gis ngeen taxaway ba mu ci taxaw waye yitte ju mujju yoju ñaari at lañ ci tek ci atum jurni ak jurom ñetti téeméer ak jurom ñett fuk 1880 señ morante Anta bayyi ko Patar dem ci mbacke kadior mbacke kajor bi mu ko sañcee mom señ Mor moy borom dekk ba mom mom dekk ba mom pénc ba waye touba kees ga mu fa amone nga xani ab neega ma fa nek muy wanagam kenn la fa dekkalon muy borom darun mooti ta borom darun mooti mo far ki tax mo sàkket mo bob mo taxaw lepp de nga nembak Moussa Ka na Mbàkke Kajoor le ñeuk la aw di sàkketal Cheikh Bamba bul ko enquête suñ Mor Anta ba mu sañcee Mbàkke Kajoor ci 1880 ñii nee nañu 1881 ci la ñibbi àjjana ñu rob ko déqale gannaaw waajuram nag ci la sëriñ bi taxawal yoonu murit waaye gannaaw làqu seen waajur muy sëriñ moo Anta Sali ci ngay gise ni ci ngay jànge ni sëriñ Tuubaa borom darul muti am borom darul muhte ma won ndax bi sen wajur laqo ku fi bàyyi ko la nga ci alal ñu di ko séddale sa njabot muy li wolof wax mirage keroog bañ koy defar sëñ Mor Anta Sali njabootam gépp ñoo daje kenn ku nekk say nijaay say bokk teew waaye ba demee bay séddale serigne touba suma sa sànni ñëw ci mbolo mu du dugg ci biir fele lay tok ci gannaaw ci la jóg wax yi mirage ni leen tunu wajur bi de muy serigne bi ndax serigne morante seli, serigne bi serigne bi lako ko daan woyé sa bu ma saa jëfandikoo baatub rek sëñ Mbàkke Kajoor muy sëñ Mbàkke Ibra moom la ci jublu mu ni leen sëñ bi de lii mu fi bàyyi Ceerno mais daal di koy joxoñ moo ci sama wàll li mu fi bàyyi itam man mii maa ci wàllu Ceerno li nu waroon a am ci miraas mi delloowaat naa leen ko waat leen ko sëñ Moussa ni keroog miraas ma bamba naa leen ceerno mooy sama wàll bu amee mu doy na man yàlla doy na ma te doyloo naa ko maam na doy na ma manit doy naa ko bu wenn xeetu kokki mbaawoo mbàkke muy nijaay boroom dara mu tii sant jóob dëkk kokki wala bokk yi sant mbàkke wenn xeetu kokki mbaa wow mbàkke taxaw fi naan sàmbaaki demba mbàkke am na feneen fu sëñ Musaa di wax ni sëriñ bi def leen ni tey ceerno séddoo na ma séddoo naa ko séddale leen sun wàll delloo naa ko kon boroom dara Daaru Muxti mooy wàllu sëriñ Touba ca miraas ma waaye Serigne Touba mooy wàllu borom Daaru Muxti ca miraasum la fi seen waajur bàyyi mu doon luy wone ni borom jumtu Muxti jumtukaayub sëriñ Touba la woon ndax sunu jamono ji tey ku sa waajur wàccoon ab liggéey bu la neexee bu ñuy miras nga ni man de duma ma donn waaye man du ma donn sama rakki doomi baay jee du donn te coow jibut loolu mooy wane ni Sëriñ Tuubaa moo moomoon boroom Daaru Muxti bi fi seen waajur bàyyi ko boroom Daaru Muxti moo doon wàllam ca miraas ma ñuy wax ni mu siiw lool miraasum sëñ Mor Anta Sali Sëriñ Tuubaa dafa ni li fi sëñ Mor Anta bàyyi Ceerno ci jël ak kaamil ba loolu dem ba siiw lool lool lool ñu bari di ko wax te fekk na demewul noonu dinaa ci ñëw ci kaamil bi ba xam ndax sëriñ bi moo wax ni jël naa ceerno ak kaamil bi walla déet waaye dafa am loo xamante ni borom daarul muxti moo ko njëkka def ci yoonu murit loolu mooy lan mooy li Cheikh Mahamadul Fadal defoon digganteem ak waajuram te mooy jaay ak njureelam jënde ko ak taalibe ba noppi fopp njëgga defaat ko addiyey Sëriñ Tuuba loolu boroom Daaru Muxti ba mu koy def booba jébbalu xewagut waaye ba ñu daje ca miraas ma te sëriñ bi wax lii mu wax ñu ceernooy sama wàll maay wàllu ceerno lan la borom daaru moo ci def sëñ Moussa Ka nee na keroog la ceerno yeesalaat njëbbal ga ndax njëbbal gu njëkk gi waajuram moo ko jël jëbbal ko sëriñ Touba tey a daaru gisatul waajuram njëbbal googee ko waajuram jébbaloon sëñ Tuubaa nag tey boroom Daaru Muxti moom moo yeesalaat njébbal ga ci sëriñ Tuubaa ci coobareem ndax bee yoon dañ koo jébbalewul bii yoon nag moo yeesalaatatal boppam njébbal googee ko waajuram jébbaloon sëriñ Tuubaa loolu yee waykat bi waxoon ni eh, te boobu kat kenn xamagul yoonu murit ndax amagul jébbalu it boo xewagul daam rek ak borom koso moom waajuram jébbaloon na ko Serigne Touba Serigne Touba yor kilifteefam ngi fi yoonu murit taxawagut waaye keroog miraas ma la borom Daaru Muxti mu ni keroog la Ceerno yeesalaat njëbbal ga fedd li boole lëwéyoon ca ndaw ga keroog la jaay bokk ga ak xam-xam ba jëndeg murit saadix walis am-am ba keroog la jaay bokk gi mu bokkoon ak Sëriñ Tubaa sëñ Morante Sëli ak na mu bokkee moom ci wetu waajuram mu jigéen wax naa la keroog la jaay bokk ga ak xam-xam ba mu xamoon lépp daal di koy jënde ak murid saalix ci sëriñ bi kon diggante borom daarul moxti ak sëriñ Tuuba lu ko sunu borom jagleel la ndax ndeysaan sëriñ Cheikhouna Lo moom sëriñ Makhtar Binte Lo sëriñ Cheikhouna Lo moom soxna Bousso Mbakke moom borom Daarul Muxti daana wax ni sëriñ Tuubaa bu daan niiral bu daan niiral dani sëriñ Tuubaa mooy géej gi nga xamante ni jën yi ñu yittewul yëpp yëpp mi ngi ci biir géej gi jën yooyu nag ngir nga ce jariñu faw da ngay ñëw ci tefas gi ngir napp mu ni nag tefes googu nga xamante ni ku bëgg a jariñu ci jën yi ci géej gi fa ngay taxaw ngir napp amul kenn ku la mën a wax ni tefes gi bi may ñëw fekkuma fi cerno cerno fa jiitu ku ñëw ci tefes gi fa nga fekk borom daarul moxti loolu la seexu waxoon te loolu mooy li nekk kon Sëriñ Musaa Ka nee na ko moo njëkk a sukk moom borom daarul moxti mujj a jóg ci baatin kun fa yokkoon ko dugal moo leen gën bokk yi ndab bu fekkee dañ ko taaj ngir xéewlu yow nga njëkk a sukk ñeneen yi sukk ñëpp fekk la ci ndab li ngay tibb di yoor ak a génne di xéewlu nga njëkk a sukk ba noppi mujj a jóg ci ndab li moo ndax manees na laa gën a manes na la ëpple ci ñam wi déedéet sëñ Musaa Ka nee na moo njëkk sukk mujj a jóg ci baatin kun fa yàkkoonoo ko dugal moo leen gën fële itam mu ni keroog bi sunu boroom bindee ruu yi te bindagul jëmb yi mu yow ma alastu ba mu wax ne alastu bi rabbikum xaloo balla te roog yonent bi sallallahu njëkk a wax balla sëñ Moussa Ka nee keroog la sëriñ tànn boroom Daarul Muxti yow ma alastu la ko Bàmba tànnoon murit yi bañ laa wax balle la génnoon mu ni nag moo njëkk sukk mujj a jóg ci baatin kun fa yàkkoonoo ko moo leen ngir mu delu wax ci benen bayit itam ni mom borom daaru muuti moo njëkk a daw kursi ba ja ak mom ba gañaaye faxagut la ak ab kurs booy fas di rawante yow nga ñeuke a mu je taxaw moy liggeel serigne touba borom daru moo ci tambali mo mu a bàyyi ndax juróom benn fukki at ak ñaar laxasaay na ko di ko liggéeyal Serigne Touba 1865 ba 1927 moo mu ni moo njëkk course ba mujj ak batu wolof boobu nag dafa bari ñuy jàng marché bi te di ko yàq ndax ak masque rek dafa mën soppi baat sëñ Moussa Ka daf ni moo njëkk a daw kursi ba mujj ak ak mooy daw ba li tubaab wax teer njëkk a mujj a teer njëkk a mujj a taxaw da nga ñu naan diw dafa daw ba ak wala fas wi dafa daw ba ak am ñooñ nag ñoom àgg la ñuy wax mu njëkk a daw kursi ba mujj a àgg loolu moom mooy safaanu lële ndax bu fekkente ni fas yi dañoo ràng yow nga njëkk départ ba mujj àgg kon ñëpp raw nañ la kon baat boobu dafa bari ñu bari di koy yàq baatub ak ak àgg sëñ Moussa Ka def ni moo njëkk a daw course yi ba mujj ak moo njëkk départ ci liggéeyal Sëriñ tuba moo mujj taxaw ak waaye bu ne moo njëkk a daw course ba mujj a àgg loolu moom du dara te dafa bari ñu yàq euh, baat boobu baatub àkk bi ñu di ko firee àgg kon keroog bi fi seen waajur jóge sëriñ Tuuba boroom daarul muxti la ni séddoo naa ko moom it séddoo na ma waaye kaamil ba sëriñ Tuuba munu ko woon a yor ndax kaamil ba kaamilu mag moom la dafa am fu muy jaar xam naa ni eh, ci ñeenteelu pàcc bi dina ñëw ak yéen ci taarixu kaamilu mag moom ba ngir won leen ni keroog mirage ba sëriñ bi jëlul woon kaamil bi ndax e, kaamil ba sëriñ Mbàkke Ibra moo ko jël dama ko yemale foofu rek ba dellu siwaat ci ñeenteelu pàcc bi leeral leen lu tax ma ni leen li ñuy wax ni Serigne Touba dani jël naa ceerno ak kaamil bi wérut danaa ci dellusi ak yéen ci ñeenteelu pàcc bi kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox dox daje juróomeelu pàcc bi waaye di sàkku ngeen abonné rek tey partager euh, vidéo yi maa ngi leen di sant di leen te di leen jox dox daje euh, ci pàcc bi ci topp